muy bisu tabaski ñoo ngi leen di bal ak di leen balu aq di leen ziyaar di ñaan sunu waay dawla yu fi jóge yàlla xaare leen àjjana ñi feebar yàlla may leen ñu wér feebar bi nag nga xam ne dafa lëmbe jamono ji yàlla musal ñu ci waaye nag ñu muslu te musal sunu bopp ginnaaw bi ñu jëlee jumtukaay yi nga xam ni moom lañ ñu wax muy masque di raxas loxo di moytu ndaje yi di sorianto ak di ci bàyyi xel bu baax di wax ni nag yàlla yàlla may léegi ñu àgg te àggale képp ku am lu muy mbébét baa lu mu soxla baa lu muy ut yàlla may ko ko te yàlla may ñun ñëpp ñu fekk déwén tey nag day bisu ziyaar di bisu ñaan waaye itam di bisu mbégte ndax euh, béréb bi ñu jullee tey muy bérébu sëñ Tuubaa bi ah man de bërëb bi ku nekk yàgg nga cee liggéey yàgg nga cee def yàgg nga am yéene waaye nag ban demee ba nga xam ni nag yàlla war naa àggale mu indi nag doomu dëkk bi koo xam ne nee na li ci des lépp dinaa ko jël def ko addiya àggale ko kon kooku dañ koy ñaanal yàlla yokk wërsëgam ab dëkk noonu rekk la boo dëkkee cib dëkk ah, da am yéene dëkk ba defaru loo amit man koo def ci dëkk ba mu defar nga yokk ko ci ndax am waa dëkk bi yëpp dajaloo woon nanu ku nekk def nga ci dara waaye egguloo tey la ko yàlla dogal ni mi ngi àgg kon bërëb bii ñoo ngi wax ni bërëb bii sëñ Touba dafay def ñetti fan fekk am na lu mu doon ut am na biddéew bu mu doon topp euh, kon ñuy ñaan nag nit ñeetam ñëw fi di ziar ndax kat ah loolu gaw ma ni am na bërëb yu mu bari de kon ñoo ngi invité nit ñi ñuy ñëw nag di ziare si ngaay gi di fi ñëw di ñaan di ñaanlu waaye tam di nu ñaanal yàlla barkeel suñu liggéey maa ngi wax ni nag ay noon ak ki adversaire amul benn njariñ li am njariñ ci dëkk boo ko bëggee mooy nga jàppale dëkk ba maa ngi leen sant maa ngi leen di bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والذكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والذكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين wasaku